Thiès 24 point com ca kaw ca kanam rek xam nga daanaa leen ko wax yéen moom amuñu lu lu yéen ndax ñun Thiès dem lañu am bu leen neexoon dëkki dakaar mbaa feneen te yéen a ngi bàyyi lépp ñëw fii installé ko Thiès te yéen a ngi doxal seen waar yéen a ngi koy bay léeg sax ma gis ngeen dem sama kër sëriñ dugg ci waa kër maam Cheikh fa am lu ngeen fa yëngal loolu nag yàlla na ko yàlla jëme kanam waaw ca kaw ca kanam information so wala information sok bu ngeen ko bëggee ñëw leen Thiès 24 point com.